internet diaspora 221 bu baax bi la meilleure chaîne du net nee la fii rek la amul feneen euh, tey nag ngeen jàkkaarloog l'enfant chéri de nangaan Paco ah mu am ay invité de marque ñoo xam ne euh, boobu ba tey bañ jàppee bawuñ benn yoon euh, bokk ci Sénégambia bokk Gambia bi nga xam ne mooy suñu réew di nuyu suñu mbokk yëpp nee leen ñu ngi leen di jaar ak Fafa ñu juddoo ci famille musique bokk ci réew mi waaye liggéey ci liggéey bu am solo nee la diaspora fii la a gars yi di waxee mon frère Abou Mboka. maa ngi lay jaar. de. maa yeah yeah that's right macha allah uh, Fafa gis ngeen ko Abu joxe. xam naa yow tamit doon ko joxe mu tàng jël rek. waaw ñëpp di wax asalaamaaleykum di kontaan ci invitation bi. Mm-hmm. ah xam naa ne Sénégal nam mën nañ Abu ak Fafa. Mm-hmm. surtout Abu ak Fafa ndax amoon na fi temps boo xam ne man rek leen daan gis. waaw kon dafa a ala doome wax nga lu am solo te loolu dinañ ci ñëw ah. dafa nar a ala doome kon ay mbay donc mu ngi noonu gars yi ami internet diaspora 221 gis ngeen li nga xam ne moom la Fafa ak Abu commencé fii ci diaspora 221. ñoom ñaar nag yàgg nañ di woy dinañ ñëw ci carrière bi de 2009 à 2022 bi yëpp muy 13 ans de carrière dinañ wax seen carrière seen début ba tey damay bàyyi rek Abou ak Fafa xaw ma kenn si jël carte bi su ko defee ñu wax ci carrière bi euh, bu la neexee mën ngeen ko def ping pong ah rasa piparang yéen a moom fii daf la la neex ak Fafa ñu ngi commencé ay magasin ak yéen bokk mhm. euh, ngeen passion ci li ñuy def mhm.

Euh, boobu gis naa mère ak pa di daw rek. Mhm. ndax njaboot lu ñu am rek daw ñëw indi ko. Mhm. ma yërëm leen ñeewantal leen ne mhm. fa comme ni mère ak pa di demee. di di di dem ci programme yi di jouer di ñëw di ñu xam nga. di fay suñu jàng defal ñu lépp lu mu bëgg. you know let's nen de xool ci ñoom. fay leen ñu def benn group def duo. Mm-hmm. lu ñu am ñëw jàppalante ak ñoom. mooy woon suñu yéene. yàlla def nag ñu def suñu first single 2009 yàlla mm. def ci barke. mooy Babali Mansa waaw mooy Babali Mansa bi woy euh, woy ko government bi woy ko président. yaa yaa jaame autant. ndax mm-hmm. boobu gis neen liggéey bi. Mm-hmm. mu am fu ñu jëlee am fu ñu yóbbu mm-hmm. c'est vrai waaw man bi ñuy def way bi du wayu politique mm-hmm. mais dama xool xam ne man bi may dem primary school dama daan yenu toogu ak table di jàngi mm-hmm. bopp wàccee waat ko yenn waat ñu dem ba loolu yëpp dañ tali yi baax xam nga ñu gis courant am ñu gis développement tuuti loolu moo ñu inspiré pour ñu def way bi from zero to hero quoi mais juddu ci famille ndaanaan yaay papa suñ both side ñëpp di ay ay artistes di ay musiciens ñu tàggat ñu ci loolu la ñu xam bu ñu xëyee lool la ñu xam. père nag d'accordul woon sax pour ñu def aar. Mhm. ndax boo waxee mu ne aar dafa bari. dafa jaxasoo xam nga dafa jaxasoo. Mhm. bu sañoon doomam di ko def. Mhm. waaye ñun ñu xam li ñu xool. du ay bës. Mhm. wala xool ci ay classe mais passion bi la mais passion bi ak jàppale suñuy waajur. Mhm. te ba tey ci yoon boobu lañ nekk. waaye macha allah macha allah am na solo jàppale seen i waajur ah Fafa dégg nga wax ci carrière bi ah euh, de 2009 à 2022 yéen a ngi ci gagné ngeen ay raay yu bëri def ay featuring ay artistes yu bëree bëri yombul ci artiste nga commencé 2009 2010 nga def tournée. waaw loolu moom dëgg la ndax loolu bi mu amee. Mhm. ñun defe naa association bi nekk États-Unis ñu koy wax Ajara ma leen di nuyu. Mhm. bi ñu contacté ñun de defe woon ne sax ay nax la. Ah. ndax boobu defe naa boobu mooy suñu. deuxième premier cycle waaw ñu fogoon ne la. Mhm. bi ñu messager abu abu ne man dañuy dem ma message ma ne tontu leen rek. abu ci la leen jox suñu numéro ménagère ñun bi ñu fi danoo génnoon ma ak moom. mais danoo dugg si kër gi ñëw fekk muy wax ak moom. ñu doog a xam ne affaire bi dëgg la. mais yàlla mooy def loolu. Euh, ngay def dara mu leer na yow koy def defoo ko rek pour am ci yoon mhm. pour dem mhm. wala nga bëgg koo def rek pour benn affaire dañ ko mhm. doon def loo xam ne ñun Abou ak Fafa li ñeen tax a jóg mooy reppi seen seen dëkk muy Gambie di Sénégal fu ñu dem dañuy wax Abou ak Fafa from Gambie loolu ñu tax a jóg ak liggéey bi ñu dooree ba léegi xàddiwuñu benn yoon metti na mettiwul mais nag yoon wi dafa metti boo ci nekkee gum ko rek mu leer na yow carrière nga bëgg a def euh, lu la lu ñëw si sa kanam rek yow dalay leer ne sa kanam mooy daax moo loolu moo lay gën a jox force. Mm-hmm. pour nga liggéey. macha allah mais mais mais force boobu noonu seen secret lan la parce que mënoon ngeen toog Gambie Gambie kese xam leen mais da di dóor fii maanaam Sénégambia bi euh, secret bi lan la parce que c'est nekk artiste gambien mm-hmm. di imposer fii di imposer Sénégal. secret bi mooy liggéey rek ak mm-hmm. gëm sa talaa gëm sa bopp. macha allah. affaire bi loolu la rek. te bañ ragal mu leer na ne yow artiste nga. war ngaa war a mën a taxaw fu nekk. waaye doo ne artiste laa rek toog sa dëkk rek. di fa toj defe na yaa ngi toj. te yow boo ne artiste nga da ngay génn dem fekki say moroomi artiste di dem fu nekk mhm. di représenter sa dëkk di mhm. taxawal sa dëkk mhm. mais doo ne artiste nga ba pare toog benn place toog benn corner rek di fa toj naa ne yow artiste nga non non artiste da ngay wër da ngay am fit da xam li ci yow. boo gëmee sa talent rek mën nga war a mën a dem fu nekk. loolu rek mooy suñu secret gëm suñu bopp gëm suñu talent. macha allah macha allah mais Abou euh, gis nañ ay jamono abu raar na ah donte faafa mu ngi fi woon di yëngal mhm. euh, lu waraloon raar bi Abou tamit. waaw raar bi raar bi li ko war lool mhm. lépp ci gestu la tamit. ak xam nga liggéey boo ci nekkee. Mhm. comme ñun dañ teel ak dugg ci aar. Euh, da nga ciy toll benn instant di nga bëgg xam nga stand by. Mm-hmm. am lu bari loo xam ne yow am bëgg nga ko xam nga. Mm-hmm. def ci sa ci sa live. Mm-hmm. ba pare dama fa am famille xam nga. am fa famille bi Covid bi ñëwee nag. Euh, mu jox ma de opportunité pour ma mën a dem. jege sama famille. xam nga spend ak ñoom time ndax boobu affaire yi dara demul. mais li ma fa nekk yëpp teewul ñu arrêté suñu liggéey wala dara. single yi nga gis bala ma travel 2020 si leen def Sénégambia bi ñu def ak Fata dafa génn rek xaaru promotion bi sax xam nga ci laa dem mm-hmm. mais si diggante bi ci la faale woo ma génn ak clip bi yëpp te boobu yëpp maa ngi foofu mm-hmm. mais dañuy comme technologie bi léegi dafa yomb mm-hmm. faa day ñëw dóor ak musiciens yi ñu yónnee ma projet bi ma def li ma war a def yónneewaat leen ko kon liggéey bi fi ne technologie bi lépp yomb na. waaye mën na nekk fi ba kilo koro liggéey bi. day day avancé da ngay liggéey da ngay job. so amoo benn excuse. foo ci nekk léegi boo taalee sa téléphone wax ak koo bëgg a waxal fu mu toll ci. waay waay not mën nga liggéey. waay technologie moo toll foofu noonu. la woon mhm. la ci mënti dem. Mhm. fu faa mën a nekk wala fu ma mën a nekk ñu ngi fexe. liggéey di leen di mhm. leen bégal incha allah. mais fa gis nañ featuring yu bëri def ngeen ko ak yu mag fii ci Sénégal ah, Wally Balago Seck lu taxoon ngeen jël choix boobu porté ko ci Mbaye Faye ak Wally Seck waaw euh, ñun bu ñuy fusionné ci suñu son mhm. comme duñu xool rek ne kii la mhm. dañ ko bëgg a fusion mhm, bu ñu defee son bi ba pare ba liggéey ko dañuy xool kuñ ci dégg ne ah kii de bu ci waxee dina neex ñu noonu lañuy ñuy liggéey waaw ah, moo waral loolu bi ñuy def single bi Euh, ñu dem ba studio liggéey ko ba pare. Mhm. sant ci Waly. waaye ngeen fil Waly Waly fil leen ngeen ànd fii la. ñu woo ko mu ne ñu benn problème boo leen woowee ci pot ma wee même ah, Mbaye moom it ko ci fiilee danoo dem ba këram waxtaan ak moom mu ne benn problème maa ngi ci biir. Mhm. kon loolu la rek ñun ku ñu sentir ci suñu woy bu ñu toogee tey. Mhm. sentir ne woy bi bu ñu ko defee dina neex Youssou Ndour bu ci waxee dara dina neex. pourquoi pas. da ngeen koy dem ba ci ci li ñu def ko rek. ok mais Abou euh, seen seen relation ak artistes sénégalais yi. Ah. est ce am ngeen ak demanteeg ñëpp euh, comme ni ngeen ko defee ci Wally Mbaye Faye keneen ak keneen Fata tamit gis nañ Sénégambia bi mu ngi mu ngi def it fu ne nii ci réseaux sociaux yi aussi. waaw oh, oh, mhm. oh, Sénégambia song bi foofu laa njëkkee sax Fata di ko nuyu. Mhm. my brother what's up bro. Mhm. Euh, muy sound boo xam ne ñun dafa daf dafa sori ci suñu xol ndax. amuñu lu dul Gambia ak Sénégal. suñu yaay mooy sénégalais suñ papa mooy gambien. moo tax. bu ñuy gis Sénégal wala dañu ñu gis Gambie du lu ñu forcé wala dara. lu mhm. naturel la. Mhm. buñ nekkul woon artiste sax dañuy ñëw gestu suñuy mbokk. surtout dañuy day doon fierté ñu ñëw xam ne fii mooy suñu dëkku mhm. dañuy ñëw xamante ak ñoom bokk ci culture bi ak lépp. te Sénégal ak Gambie toujours rek li may wax mooy. dañuy doon xale mais dañu war di gestu. ak di fexe di gestu li fi maam yi bàyyi woon. surtout que ñoo bokk lépp. bu njëkkoon dañ ne Sine Saloum. Kayor Bawol Mandinka Empire. loolu mooy Sénégal bi. tubaab bee ñëw xaajale ñii di làkk french ñii di làkk anglais loolu tubaab bi moo ko fi indi mhm. di kon tey Sénégal ak Gambie benn réew la mhm. ñoo bokk lépp dëgg la yow ku la xool xool ma bu ñu taxawee noppi kan a mën a seppi kan mooy Gambien wala kan mooy sénégalais amul mhm. soo moo tax ñun nit ñi ñoo war di xam ne bu Sénégal di làkk french Gambien di nekk di làkk anglais lu tubaab bi indi la benn bopp la kenn mënu koo xar ñaar moo tax ñu def way bi artiste su Sénégal tamit am nañ ak rapport ñu bëree bëree bëri. Mhm. ndax bi ñu commencé di fi ñëw di job mhm. ba léegi euh, kun ci xamanteel rek da ngay am ak ñun nice relationship. artiste day jógee ba Sénégal ñëw Gambie di ñu seet. Mhm. nañu yéenay sama mbokk te bu ñu la xamul sax da ngay ñëw seet ñu. xam nga loolu tamit. gën a indi rataxal mais yeneen yeneen dégg mais yeneen la sax. ñoo war a jàppante ñoo war a xam nga. Mm-hmm. ndax ñoo bokk liggéey bi. Mm-hmm. dafa war a nice ku ci nekk li nga war a am sa wërsëg. Mm-hmm. mënoo jël wërsëgu keneen. ku nekk li nga am ak li ngay def. am na ku toog di la bëggee bëgg la ci loo ci mën a am da ko ci am. kon yeah foofu rek lañ ko teg. macha allah macha allah mais Fafa euh, Gambie ex musique bi mi ngi avancé foofu aussi showbiz bi euh, par rapport ak Sénégal showbiz Sénégal xam naa dinañ ko waxtaanee mais li ñu njëkk a waxtaanee mooy showbizu Gambie parce que Gambie euh, musique bu fay gën a dox boo xoolee mooy musique dansal bi mooy bu rythme bi mais texte yi day génn aussi. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw par rapport ak avant macha allah fi mu ne moom lu bari mu ngi changé ndax toll woon na moment boo xam ne métti woon na trop mais léegi gis naa ne gars yi ñu ngi gëstu bu baax a baax li ñu am mhm. li ñu moom loolu laay wax tout le temps ni ku nekk loo am bala ngay wàlliyaan yi mhm. exactly mhm. leen war a gën a bàyyi xel li ñu am gën a support li ñu am parce que fii koo fi gis rek mu taxaw wala mu am doole dëkkam moo ko jàppale ba pare keneen doog ko bàyyi xel mais gis naa ne fan yi moom affaire yaa ngi dox ba pare boo yaa ngi def lu nice a nice a Ah, ma leen di gën a encouragé rek ñu gën a góorgóorlu ba pare gën a gestu ci seen aada ak seen cosaan ak liñ moom. macha allah mais mais foofu biir Gambie ak sa tamit euh, entre yéen artistes yi jàmm bi mu fa. parce que Gambie bëri na ay artistes yu mag ah, ay mhm. Jalimaali ñu ngi fa. suñu mhm. papa Jaliba Kouyaté Barham. Mhm. gars yëpp ñu ngi fa quoi. non am nañ fa nice relationship. boo xoolee albumu sargal bi. def nañ ci ay featuring ku ci demee ni Djibou Balla Gaye ku ci demee ni Royal Messenger nga. def nañ ci featuring yu nice ba pare xam nga am nañ good relationship with the mm. artist mm. xëj na gise bi du demee noonu mais kun ci gis kun ci dajeel jàmm la ñuy seex ak ñëpp liggéey suñ xewlee ñu bari ku ki nga tudd Jalimaani luñ xewle mu ñëw mm. ñoom barxaama luñ xewle ñu ñëw you know so yeah jàmm daal moom jàmm ak salaam <laughs> léegi léegi xam nga yéen da ngeen a ñëw yëngal mbir mi mais balaa ñoo dugg ci yëngal bi du xam ngeen tab tab seen tab-tab seen. waaw transfert seen mooy mooy mooy yëngal réew mi. parce que yow yaa ngi yaa ngi yaa ngi Angleterre. nii dangay toog yor sa xaalis sa sa téléphone. doo xaar sax di génn. Mm-hmm. dangay dem envoyé ko waa Gambia su ko defee waa kër ga dawal dépense bi. yomb na mun nga dem télécharger application bi Play Store. Mm-hmm. wala nga nga dem si si li nga xam ne mooy fi nga ko mën a télécharger. mais la ca gën a neex am na jus boo xam ne nuuru laa. da ngeen dégg gars yi di ko wax nuuru laa. jus boobu tamit beneen affaire la. jëm leen mos buy bi bu ngeen mosee buy bi ah. nuuroo ngi nuuroo ngi tag réew mi moom laa naan léegi xoolal dañ ma ko jox na ma boo naanee Sénégal day gagné te match deuxième match bi il faut ngeen yóbbu ko nurulaa laa bi pour que équipe bi mën a gagné ah, ñu woo Aliou Cissé jox ko nuuru laa mu jox Elimane Ndiaye jox Bamba mu yegg li ñetteelu bii bi léegi comme comme comme ay gan lañu te dafa tàng non dama leen koy jox léegi léegi nañ ñu yónnee ay nuuru laa yu baax dama leen koy jox léegi jeena dama leen koy jox léegi waaye li ca gën neex tamit dama la ñuy booleeg leneen loo xam ne da ngeen di tabax ci wàllum tabax du xam ngeen tabax construction ñu nga fee ca lépp loo bugg ci wàllu tabax mhm. bëgg sa aménager sa kër mhm. nga bëgg ciment moom daal wàllu tabax lépp lay dox mhm. ñoo fekk baax foofu noonu terrain nga bëgg ko ci Sénégal ak foo ko bëgg bëggee solo sa daal dem Ngaparou nga laajte dabax construction. macha allah waaw kon foofu noonu benn kii la moo rek après dañu fay ñëwaat. léegi Fafa eh, dañuy dugg nag ci show bi Sénégal ndox yéen ñëw ngeen Sénégal imposé seen bopp. Mhm. Ah, di dem ci spectacle yu mag yëpp wax dëgg fa neex yàlla. mais nan ngeen gisee show bi Sénégal parce que nag show bi ak coow ñoo ànd. Mhm. mais nu gars di dóorantee xeer ci biir show bi eh, yaa ngi may xool de damaa seytaane de nan nga gisee. <laughs> dóorante xeer bi ci biir showbiz bi quoi souvent ngeen di toog wala abu nga toog Angleterre gis ñaari artiste ñu ne artiste bi jàpp na fii artiste bi jàpp na fële ci showbiz Sénégal bi ni muy doxee quoi. oui mais mais show xam nga xam nañ ci euh, yenn yi hmm. ngeen xaw a laale. mais man man gëmuma loolu. gëmuma di di noonu ak ay nit. ba pare lu ci bari man toujours man li may gis mooy. ñaari nit ñooy ñëw jaxase ay artistes. waaw mais bu jaxasoo amee pour man du nit ñi ñoom artistes yi ñoom la. Mm-hmm. faute bi ci ñoom la. ci artistes yi la. waaw man boo ñëwee ne ma Paco lii ak lii ak mm-hmm. lii ma jàpp mm-hmm. loolu. yow ak ka ñëw wax la yéen a yem. yéen a yem waaw te artiste di ñëw di jaayante ak ay nit ay di noonoo ak ay nit. pour lan amul benn sens. amul sens méegul benn sens. xam nga defante bi di lan la bu way jotee nga way bu sañse jotee nga sañse bu def lu baax jotee nga def lu baax. waaye mënoo nekk di xulooyee ka di xeex amul benn sens. amul benn sens liggéey teg ko ci yoon professionnel xam ne dafa am ñuy xool ci yow. Mm-hmm. di la di la di la roy ci yow. di mm-hmm. xool nga doon référence ci lu mm-hmm. bari. kon lépp looy def rek fexeel di seex ak ñëpp jàmm ba pare bañ foo. parce que concurrence dafa dafa bokk ci business. bañ a foo man man bu ma xamee ne man mënu ma def ak yow. foo ak yow benn affaire. mais mais ci foo boobu mbaa amoo leen tamit ci artiste sénégalais. mais mënoo mënoo li gars naan rek. li mu ci album bi am na woy bu ne bañ weex na waaye deret a ko lal. si Jamfa moom la soosay naan Jamfa. xam nga mm-hmm. man dama génn. Mm-hmm. xam nga nekk ci biir ni der yu weex lu mm-hmm. bari mais ñoom li bokk na ci qualité yi ma gën a neex bu ñu la bëggul dañ la naan bëgguma la I don't like you. ok duñ la reeyal duñ la lii buñ la bëggul mënuñu def dañ la koy wax carrément. au contraire ñun gars yi fii dañoo faux artiste yi dañuy faux waaw dañ lay lii ba pare di la reeyal di la lii boo wanee ginnaaw ñu wax leneen. Mm-hmm. waaw macha allah mais faafa surtout yow nga doon jigéen ah di évoluer ci milieu bi abu souvent mu dem nekk ci beneen job mais yéen a ngi liggéey ensemble yow da la fi bàyyi nga ñëw Sénégal di tourner est facile pour yow tamit yomb na ci yow ak gars yi parce que nit yi soo biir si tamit ay kaymaa lañ de ay màttkat lañ <laughs> <laughs> mais boo nekkee nandite rek comprend affaire bi ci biir rek mhm. euh, dara du la jaaxal surtout li ñuy wax rek ku mhm. ñëw di nga waxtaan ak moom ree mhm. ah mu ree nga ree mais booba yow fekk yow xam nga bu baax a baax mënut a dox sa parce que man bi may bi ñuy dugg ci musique maa ngi am 16 years 16 ans lañ koy wax ah 16 waaw ma xam lu bari teel a dugg ci affaire bi yàlla dimbale tam dimbale ma may ànd ak sama mag mu nàndal ma yu bari ma comprendre kon moo tax man bu nit ñëwee ba wax yenn affaire yi daf may def ay ree parce que damay comprendre dama xam ndax musique bi boo ci nekkee surtout ngay jigéen il faut nga am noo noo toogee ak noo taxawee waaw parce que mm-hmm. il faut nga gëm sa bopp bul jàpp ne kii bu la defalul lii doo dem yenn yi nit ñoo proposé la loo xam ne mm-hmm. mu leer lii affaire u ñàkk fayda la boo gëmul sa bopp mooy waral nga dem ci de mais boo gëmee sa bopp mu leer na ne yow bi mm-hmm. ngay jóg xamoo kii gisoo ko yàlla rek a fi ne liggéeyal sa liggéey te concentré wu que liggéey bi ñu nekk nii il faut nga am fulla ak fayda surtout ngay jigéen dafa mhm. metti mhm. gis nañ fi lu nekk nag dégg nañ fi lu nekk. Baara yow tamit dégg nga lu ne. gis nga lu ne mais taxul ñun comprendre nañ game bi. <laughs> ñun liggéey moo ñu tax a jóg waaw ah, caaxaan taxuñu. macha allah ah. abu nag dañuy ñëw ci ci projet bi. parce que yéen a ngi waajal lu garaaw tout récemment def ngeen ñaari single. featuring ak Fata ngeen def faale wooma bi faale wooma bi moom moo fi toj surtout Fafa lim lim lim fa lim fa yuuxu. lim ca wax ñëpp a ngi koy waxtaanee fi mu ne nii. mais projet bi fi mu ne nii 2022 bi parce que bientôt 2023. te yéen a ngi waajal lu garaaw lan lañ mën a xaar ci projet bi waaw projet bi man moo ma gën a tax a ñëw sax nii mm-hmm. euh, ñuy waajal projet boo xam ne ñu ngi ciy job ak label bu mag fii ci senegal waaw bokk na ci label yi ñëpp bàyyi xel. mën nañu xam label bi. waaw label bi fi mu nekk dañ xaaral ñu lof ko tuuti. Ah. ndax def ah, def ci code tuuti. yéen coow ngeen fi nar coowu label yi fi mu nii jaxasoo na de. waaw ah moo tax ñu ñu def code mais léegi ñu def announcement comme mm. defagun announcement bi. Mm. mais ñu ngi liggéey ñu ngi mm. studio fan yii yëpp bi ñu yegsee. Mm-hmm. studio la ñuy fanaan guddi gi ba fajar mm-hmm. xam nga clip biñ war a génne fan yi rek ñu tourné ko London ci soma bi nii ndax ñu ngi woon London. macha allah ci cultural week bi. di mm-hmm. nuyu Ndiok Malick Dieng waa mm-hmm. Yaram Arts waa London. Mm-hmm. you know thank you so much guys for the support. xam nga Gambien si. ak ñu ñëw ci cultural week bi it was amazing. waa di waajal project bii nii ndax euh, bi ñu génnee sargal bi. 2017 la. ci diggante bi. xam nga màgg nen. ci gën am expérience. ci liggéey bi. xam nga din leen gestu dineen gis music mm-hmm. dégg different abu ak faafa ci beneen beneen genre of music mm-hmm. gën a gis more maturity in the projects ak lépp ndax liggéey étape par étape la surtout te ñun bu ñuy xool suñu liggéey always dañuy xool liñ mujj def you know bëgg a def lu gën a am qualité lu gën a baax mm-hmm. soo gars yi neen xaar projet bi ci semaine bii rek xam naa vidéo bi dina génn mm-hmm. insha allah insha waaw mais mais Fafa ci ci ci projet bi yan genre sonorité lañu war mën a xaar maanaam si côté woy bi ci thème bi parce que souvent ngeen woy loo xam ne man mi damay toog am ak problème sama gel mais sama xol day neex mm-hmm. woy ngeen fi leneen loo xam ne tamit bokkut ak mbëggeel côté sonorité si thème yi lan lañ mën a xaar waaw ci mbëggeel ci ndax euh, xam naa ne bu son yi génnee dinañ gis Abou ak faafa ci yeneen facette dinañ dégg Abou ak faafa ci yeneen i gaam mhm. leneen la loo xam ne sax duñ ci xaar Abou ak Fafa neen xaar ci mbëggeel mhm. neen xaar ci lépp mhm. waaw macha allah mais fitu di ngeen aussi am ngeen ay woykatu Sénégal yi si bokk ak Gambie wala tamit yeneen ñoo xam ne dëkk nañ ci yeneen dëkk yi waaw waaw waaw ñu ngi koy ñu ngi koy liggéey xam naa ne instant bi album bi fiw cooguñu ci kenn mais am na ñoo xam ne ñu ngi ciy waxtaan ak ñoom bu ñu décidé rek dinañ leen ci woo incha allah. Mm-hmm. mais mais seen relation ak Wally Seck ba tey mu ngi nice. ça bu baax a baax. baax a baax parce que après ñu ngi wax souvent naan gars yi dañu leen gëj a gis ñu liggéey ak Wally loolu tamit day baax ñu leeral leeral ko. <laughs> muy bu baax a baax a baax. Mm-hmm. mu ngi biisi si li muy def ñu ngi biisi si li ñuy def mais taxul xol yaa ngi gisee. macha allah macha allah ci projet boobu noonu Abou euh, bu bu génnee war ngeen dem ci ay ay salle parce que am ngeen li ngeen fi doon wàcc far yàlla Covid bi ñëw yàq lépp. waaw parce que su ma juumul bu ngeen ko defoon yeneen artistes gambien yu ko njëkk def. donte ay doomu Sénégal yaa ngeen. mais jógee ba Gambie ñëw jël salle yi gën a mag ci Sénégal ne da ngeen di organiser événement. Mhm. waaw loolu euh, comme li ma wax 2020. Mhm. bëggoon nañ def événement bu mag fii nii mhm. Sorano. lépp taxaw ak lépp. Covid bi ñëw ñu pousse affaire bi. ndax dañuy gis saa bu ñu ñëwee Sénégal dañu ñëw jaar ci tele yi. Mhm. xam nga wala jaar ci events yi. ñu gisaat. waaw mais fi mu ne comme liggéey bi yàlla def na gën na ko indi boor bi. Mhm. dinañ ñu gën a gis. Mhm. you know ci events dinañ ñu gën a gis ci soirée yi. ba pare ñu ngi waajal tamit comme su projet bi. pare ñu ngi waajal def event bu mag boo xam ne. Euh, sénégalais yi yëpp ñun na moon jàkkaarloo Abou ak Fafa mm-hmm. di ñu gis rek ñuy ñëw ci càpp rek dawaat mm-hmm. dinañ janoo ak ñoom woyal leen mm-hmm. xam nga def live performance woyal leen mu nekk tamit lu sax ñu ñuy gis lu bëree bëri bëri ci ay events bokk na ci suñu plan incha allah incha allah mais ci plan yooyu aussi tamit yéen a ngi waajal ay tournée comme ni ngeen ko defoon biir Gambie ni ngeen ko doon defee bu njëkk ba donte temps amul mhm. mais yéen koy waajalaat pour pour mun ko def waajal ngi waajal ay tournée mhm. xam naa ne décembre bi rek war na nekk États-Unis incha allah mhm. kon nañu waa Atlanta yëpp xaar euh, am na yeneen a yeneen yoo xam ne mu ngi ci yoon incha allah si at bu bees bi ñëw lu neex lu day abu waaye li am solo mooy ñu waxtaanee li am solo kii seetaan mën ñoo bàyyi xel abu lan mooy kàddu gu mujj gi waaw di di la wax ne rek thank you so much for having us ah euh, Diaspora 21 dañ leen di seetaan di leen bëggee ngeen di joxe information yu nice yoo xam ne macha la xam nga di di di ñu xamal surtout ñun bu ñu nekkee fu sori yéen yéen a ñu mën a jox information bi mu soxla mm-hmm. waaw te liggéey bi comme ni nga ko defee nii rek mm-hmm. toog nañ fi waxuñ fi dara lu débordé mm-hmm. wala topp yenn ka artiste bu toogee surtout gisee ak toog yombul danga koy laaj ci li am solo muy carrière am te loolu laa gis nga def li wone ne yoo are very professional xam nga kon maa ngi leen di béggee bu baax di nuyu de crew big up you guys bu uh, uh, imagine sama gars yi di seetaan du ñoom la jënd <laughs> big up you guys di nuyu Sol mi nga xam ne moo ñuy assisté suñu mm-hmm. assistant ak mm-hmm. Tufa mm-hmm. ñoo ànd ak ñun lépp lu ñuy def di si jàpp suñuy parents you know mom and dad we love so much thank you so much macha allah Fafa waaw di kontaan rek xam naa ne boo nuyoo uh, mom and damay nuyu suñu famille yaay fii Sénégal xam naa ne ñëpp a koy seetaan seetaan di leen nuyu bu baax a baax a baax di kontaan ci invitation bi di nuyu Babs ah mm-hmm. maa ngi lay big up bu baax a baax a baax a baax mm-hmm. a ah, baax thank you so much kontaan nañ si invitation bi mm-hmm. mu ngi noonu ami internet diaspora 221 nee naa la lu neex du day waaye ku seetaan li xam ne mbir mi neex na te doy na sëkk ndax gars yi dañuy waajal nag projet bi abu Fafa nekk ay doomu Sénégal nekk ay doomu gam Gambie ndax sa yaay sa papa buñ la juree bokk ci ñaari culture foo def jaar da ngay yëngal culture boobu noonu ay doomu ngéwél lañ nag te doomu ngéwél force mu yëngal ngéwél boo tax ñu ngi yëngal ngéwél fu mu ne nii ndax ci deret bi lay lay lay lay lay nekk mais mais balaa gars yi di tàggatoo il faut ñu am luñ ma ñamal ci seen projet yi wala loo xam ne voix su ko defee nag ma sama partenaires yi abo comme que nuyoo ngeen yaag faafa euh, dafa am gars yi laaj ci voix bi tamit mu ngi noonu benn benn benn benn benn benn benn 30 secondes rek you my life my soul you oh. the joy of my life whenever I feel sad baby your love makes me strong you're my life oh. my soul you the joy of my life Whenever I feel sad, your love makes me strong. Mbëggeel ni mu neexee moom ni mu neexee noonu la mettee mbëggeel ni mu neexee moom ni mu neexee méttee ku ma xool ci yow baby chéri mere ma mere la man de dégg naa ñoo ngi naan danga ma liggéey liggéey suñu waa kër nanañu ma ali du neen waaye xam naa li may feel ci yow du lu mel It's real love, baby. non oh, mais mbég la fort waaye waaye mbég la fort waaye mais gars yi voix baa ngi bi génn na macha allah te li ngeen woy nii moom ah, ah man de fii laay jaaree uti jabar. Ah. xale xale bu bëgg daal moom bu dégloo musique bi su duggee ci noppi rek ma ñëw taxu ko. mu ngi noonu mais di remercier tamit aussi suñuy partenaire lu ci mel ni Dabax construction nekk foofee ca Ngap Rouen ah. euh, di nuyu bu baax a baax DG bi di Sadibou Cissé mun nga ko contacter ci 77 518 51 07 Dabax construction rek loo xam ne ci bâtiment la wala nga soxla terrain wala lépp xam ne sa kër da nga bëgg décoration rek mën nga leen contacter waaye nag di ziar bu baax a baax a baax a baax tap euh, seen tap tap seen nag ba mu ba tey Sénégal euh, tapé na réew mi waaye tapé na àdduna wërngal këpp euh, tap tap seen bu baax bi nee la boo bëggee envoyé xaalis mu nekk sa téléphone doo dem doo dikk toog fi nga toog yónnee ko laala nank tap tap seen dugg ca application bi na ko tung mu dal nga jot sa xaalis nank te kenn du ko xam ci sutura waaye nag boo bëggee jus bu neex consommé local la ñuy wax te ay doomi Sénégal lañ rawatina doon ay doomi Sénégal bi yaa laalal ma nuuru laa boo demee ci jus nuuru laa bi di nga naan mu dugg res ak jàmm te du am benn problème ci sa biir ndax lekk gu baax dafa baax waaye tamit naan gu baax amatina solo waa Nuru Laal ñu ngi leen di sant di leen gërëm mais tamit di remercier ñi nga xam ne ñoo ñuy bàyyi xel eh, ci diaspora bu baax bi nee naa la doon king yombul nit ñi mun nañ ñekk di wax wala keneen di wax wala yow nga def sa bopp king waaye li am solo mooy ñëpp nangul la te diaspora 221 ñun nangul nañu rawatina suñuy animateurs yi fi nekk li ci mel ni Diagnard Fifita waaye suñuy technicien eh, mbir mi day gën a neex di ziar tamit waa Gambia suma réew di nuyu Mbacké waa Banjul waa Ibo Town ndax ay doomu Gambia la dalal fii ñu nekk sumay mbokk maa ngi ziar suma mbokk yi nekk foofu noonu yëpp di ziar gars yi nekk ci prison Mile 2 bi yàlla defal leen jaamu def jaamu sama réew boobu parce que nag ñoo tax ma doon li ma doon tey avant Sénégal sama xale yaa lépp foofu laa ko defee donc Gambie dafa bokk si man di remercier suñuy internet yi nga xam ne ñooy bàyyi xel diaspora 21 mais tamit di remercier sama mbokk Saalum Saalum yi di remercier gars di remercier waa ñaari tali bi ma dëkk mu ngi noonu c'était Paco à la présentation di remercier équipe technique bi yëpp gars rang di joxante rendez-vous beneen yoon fii rek la amul feneen